ginnaaw poste de santé bi nga xam ne Touba ca kanam inauguré na ko fii ci Touba ci atum 2018 ci quartier Touba Lansar Touba ca kanam inauguré waat na yeneen ñetti poste de santé ci benn bis di dimanche ji dëppook le 11 juillet 2021 ci yi nga xam ne moo di Bogoréel Kër Gol ak Daarul Xadim ñetti poste de santé yi ñu def ci lu ëpp 400 millions de francs CFA. ñetti bërëbu fajukaay yi nga xam ne moom la ubbi di sant yàlla bu baax ci fi Touba ca kanam ak Touba ca kanam de bi nga xamee ni liggéey bi tàmbali na ba ñu dox ab diir taxaw di xalaat nag yi nga xam ne yu jàmp la ci dëkk bi te Touba ca kanam man cee dugal loxo ba xalaat jib jëm ci wàllu wér-gu-yaram booba de téeméeri million moo nekkoon ci compte Touba kanam ñu doon ci xalaat taxawal ñeenti bërëbu fajukaay loolu boo ko xoolee kon day mel ne xayma booba mi ngi nekkoon ci poste de santé bu nekk vingt cinq millions lañ ca xayma woon a def cent millions yi ñu man cee am ñeent. waaye feexi sëriñ bi teel na cee feeñ lool ndax poste de santé bi ñu njëkk a defar bu Lansar te ñu ubbi ko lañ ca def dañ koy xayma ci téeméeri million ak juróom fukk te benn bu ne ñaar fukk ak juróom lañ doon xalaat booba ma ngay dox ubbi nañ ko 2018 yeneen ñett yi nga xam ne moom la ubbi boo leen boolee. dana ëpp ñeenti téeméeri millions lu ëpp def nañ ko ci ñetti poste de santé yi nga xam ne moom la ñuy tey. poste de santé yi nag liggéey nañu ko ci qualité waaye respecté mbooleem norme yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee bërëb yu nit ñi di dajee waaye sàmmonte it ak normes yi nga xam ne moom la ministre de la santé teg. nañ ko ci norme yu ñu war a liggéey li ñuy wax édifice public bâtiment boo xam ne mbooloo mu ñu cay di dugg ak a génn dëppoo na ak norme yi ministère de la santé santaane ñu taxawee ko poste de santé ndax wax nañ ba tàyyi ne plan de base yi ñoom ñoo ñu ko jox waaye ñu liggéey ko ci anam koo xam ne bërëb yi ñu ko def district sanitaire bu Touba booba Serigne Mouhamadou Dieng mii nekk régional bu Diourbel léegi moo fa nekkoon moo ñu jox orientation yi ñu waxtaan ci ba dëppoo ci samp ko ci gox yi ñu ko samp su weesoo ñeenti poste de santé yi nga xam ne noppi nañ bañ inauguré am na yeneen ñaari poste de santé yoo xam ne Touba ci kanam mi ngi koy liggéey jamono bi te liggéey bi sori na lool am yéene bu ñu màggale ba noppi ñu ubbiwaat yeneen ñaar ndax bii nekk ndaam daaru alimul xabir mi ci finition yi bala nekk Touba Njaaréem tamit mi ci finition yi bu ñu yàlla defaree taw ren ji balaa at may jeex war nañoo tàmbaliwaat yeneen ñett ndax bërëbu fajukaay ci Touba bu ñu sukkee sukkandikoo ci plan national de développement sanitaire dañuy wax ne Touba manqué na juróom benn fukki poste de santé ak juróom benn manqué na ko yoo xam ne waroon na fi am te ndax limub li fi am fi ne nii ci ñaar fukk ñett lay toll xëy na buñ ci boole ñett yi ñu li nga xam ne war na koo am ci ay euh, centre de santé war naa toll ci 12 loolu nag kon day tekki ne liggéey bi des na. bokk na ci objectifu Touba ca kanam moom moo di kart sanitaire bu Touba ñu jàpp ci ba mu soppeeku bu baax a baax. Touba ca kanam mébétam. mooy carte sanitaire bu Touba mu dugal ci loxoom jàpp ci ba mu bokk ci carte sanitaire yi gën a yi gën a sell ci senegal te loolu lu yomba yomb la. sous-préfet bu Ndam médecin chef bu région bu Diourbel. mënoon na jóg rek dem samp bërëb bu fajukaay fu mu ko neex wala fu mu bëgg te su ko defoon tamit dañ ciy ànd ak moom mais dañ ko teg lépp ci xam-xam te xam-xam boobu discours Fata génn na ko ndax Fata. ci biir ay waxam wax na li ñuy wax PNDS muy plan national de développement sanitaire et sociale daldi wax li ñuy wax carte sanitaire daldi génne ay normes norme mooy ñu xool xayma lim bu nekk lan la yellool ci kër docteur ak ci docteur ak ci ay équipement kon Touba ci kanam li muy def teg na ko ci xam-xam teg ko ci yoon loolu dañ koy rafetlu di ci sant bu baax dañu àndoon aussi dem poser première pierre wu structure yooyu yëpp teg xeer yu njëkk yi sëñ bi ñaan ci yàlla dogal ñu ñëw fekk tey ñu koy ubbi kon ñu ngi sant yàlla bu baax dinañ def suñu kentalaayu kattan ngir mu amal njëriñ nit ñi amal njëriñ nit ñi nag mooy dinañ fa yóbbu ay docteur yu xarañ loolu soxna Ndey Màgget bi nga xam ne moo fi nekk te nekk fi médecin chef di district sanitaire de Touba moo koy nuyu bu baax dina ci taxaw ñu ànd ci jàppale ko. mooy taxawaay Touba ci kanam ci dëkk bi leen ci benn domaine bi ngi ci tali yéen a ngi ci assainissement bi yéen a ngi ci social mu mel ni lépp loo leen sëriñ ngeen ko njëkk a moo fa teewloon Serigne Mountakha Mbacke Bachir xalif général des Mourides rafetluwaat bu baax a baax taxawaayu Touba ca kanam. muy liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la ndax gàttalu Serigne bi ci dëkk bi rek la ndax nii ko Abdou Fatah waxee noonu la dem dëkk bi li fi war bari na kenn koo xam ne rek yaa ma taxaw ne man képp maa ko may defal. ndax dafa yaatu rëy ba noppi li fi war bari kon képp ku jug rek ngir seet waar wi nga xam ne xool nga ko ba mu dal sam xel ndax Sëñ Tuubaa mooy gidde te Serigne Saliou ca kanam su wàllum santé di wér gi yaram am na yeneen projet yoo xam ne mi ngi koy liggéey jamono bi ci diwaanub Touba mu jëm ci wàllum assainissement éclairage public wàllum voirie ak yeneen lépp nag li nga xam ne moom moo koy financé mooy koppar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci taalibey murid yi di mille francs yi nga xam ne moom la ñuy joxe weer wu ne ndax Touba ca kanam nee na day laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.